Ndeysaan ma nga noonu Balla Gaye 2 ñëw na Ndeysaan le lion de Guédiawaye ngi noonu Ibrahima Ndeysaan kii ñëw moo bërëg booy sëy ko Ibrahima kii ñëw Ndeysaan ndaanaan la ci biir ndaanaan yi moom Balla Gaye 2 mais eh, ñu ngi lay nuyu. Balla tay soog bu leen di bëre Fils de Balla nga ñëw di ko dooleel ci bis bi ban yëg-yëg nga am tay ci bis bi. Balla tay ban yëg nga am ci sa bu di bëre nga ñëw ci stade bi ban yëg-yëg nga ci am. sant naa yéen ñëpp. waaw maa ngi am toofi maa ngi am toofi. laaj. laaj. yow dafa wuy ma wuy leen ma sama gaay waaw wuy leen ma dimbali leen ma wuy leen ma sama gaay ñu def ndànk am na ñoo xam ne ñu ngi ñu jël Balla Gaye calmement mu wax ñaari mots su ko ñun ñu def leneen def ñu ngi lay nuyu tey sa poulain di bëre fils de Balla nga ñëw ci stade bi ban yëg-yëg ci am waaw xam nga fils ñëpp xam nañu sama tooma la bi li ma war mooy ma ñëw ak suma école de lutte ak samay boy nga xam ñoo fi nekk ñëw soutenir ko yàlla may ko ndam incha allah ñu bis incha allah. dimanche bi weesu da ngaa ñëw fii ci yaa bëree daan préparation Fils de Balla ak état de physique am ñu bari nee nañ combat bu yàggee avantage am la mais bu gaawee avantage bi góor a soxla lan ngay wax ci loolu. non jàppal ne Fils de Balla lépp lu ma entraîné maa ngi moom ñoo ko bokk def ñoo doon contact di yëg diin ñoo doon def lépp donc mu gaaw mu yéex lañ ci boole yemale ndax xale la liggéey na ñu naan yàlla yàlla may ko waaw. non amul problème parce que lamb moo mel noonu lamb dafa ànd ak tension lamb dafa ànd ak moral dafa ànd ay ay supporters ñuy dëkk fii ñuy dëkk fii moog lamb ñoo àndoon. bal léegi fii sa bal la gay jël Modou Lo mu ne li nga wax nii da nga ko rek moom bu nekkoon Sénégal <laughs> mënoo koo teree ñëw ci stade. ah mais moom na ñaaw rek. Euh, contrat bu yàggee noonu mosuñu ko gis suñu àdduna na ñëw rek motali contrat am ak loolu rek ma laa koy wax waaw. mais Balla loolu fils de Balla nga xam ne sa sa poulain la. moo waaw son poulain la moo waral tey moo war a ñëw fii yàlla may ko ndam waaw. Ah, ah. merci beaucoup Balla. waaw merci. mooy li ma waxoon bi paase rek. boo gisee boo gisee boo gisee sax. Ah, mbër di ma yëpp dafa am nu mu demee woon. te rek dootuma ko may kenn muy suma poulain yi muy waa Géejawaay yëpp. kii ñëw boo ko daan na combat yëpp. muy boxe muy bëre. nee naa leen man bu ma ñëwee daa fekk nga liggéey ba dee moo tax ma ñëw. ok bu liggéey woon du ma ñëw. yàlla xam ne aw ma ci tiitaange aw ma ci dara. contact naa moom léeg mu force ci man ak jël te man force ci man jël ci entraînement yombul kon. bon félicitation yoon bi mu tegu nii ñun ñoo ciy jël suñu motuwaay ñu bañ a teggee ko. dafa am lu Guédiawaye def ci làmb. xam nga Balla Gaye dafa rom beneen Balla Gaye ci biir école bi. am yeneen yeneen yeneen moom da cee bokk ak ay moromam. kon donc ñun lu ñu mun sas ko entraînement gérer ko ba yàlla defal ko jàmm fu ñu dégg Balla Gaye fu ñu dégg Gouye Gui fu ñu dégg Lac de Guiers fu ñu dégg Sa Thiès ñu dégg ko fa te incha allah bu neexee yàlla yaakaar Guédiawaye